Bienvenue. Bienvenue sur votre émission Boulevard de l'éducation. L'émission qui parlera de l'éducation, mais cela ne s'arrête pas là. Donc, je vais vous demander de sur votre chaise et bien sûr notre émission qui parlera de l'éducation, que ce soit professionnelle ou bien éducative dans les autres secteurs, qu'importe la situation, on en parlera. Donc, yéen ñi nga xamante ni yéenay faral di suivre RTT bienvenue ci seen émission bi nga xamante ni mooy boulevard de l'éducation bi nga xamante ni day wax ci jàng bi muy milieu bi nga xamante ni c'est professionnel ou éducation dans les autres secteurs donc émission bi dina li indi loo xamante ni mosoo leen ko gis ci li ngeen jot a xam ak li ngeen jot a xamul lépp dinañ ko dajale tey ñëw teg ko fii ñu waxtaanee ko ak ñoo xamante ni seen xam-xam mat na ci loolu wax leen dëggi dëggi li nga xamante ni moo nekk ci dëkk bi merci